signal am hmm. li hmm. euh, euh, mais li ma ci gis mooy def nañu lu lu ñu naqari te su ma nee lu ñu naqari jublu ma ci waa Walfadjri rek dama ci jublu Sénégal gépp parce que lu mu gàtt gàtt am na ay junniy junniy sénégalais yoo xam ne ñoom su Walfadjri coupé bokkatuñ ci réew mi parce que lépp lu ñu xam ci réew mi Walfadjri moo leen ko wax su fekkoon ne Babacar Diagne def ko coupé ndax waa wala fii dañ doon wane lu ñaaw wala ñu def loo xam ne journaliste yi ñu doon ñu ngeen nekk ko man ma nekk ko man nañ ne lii du liggéey journaliste su boobaa ñu am luñ ko expliquer mais su fekkee ne dañoo couper sa signal ndax da nga doon def liggéey journaliste dama naan y a problème dans ce pays li xew lu yomb la wal Walfadjri dem na Mbàkke ndax benn parti politique bu fa doon def meeting am parti politique boobu ne ñun ne suñu meeting bi dañoo bëggoon ku ñu ko directal ñu ne leen comme yéen parti politique ngeen te da ngeen di def seen communication su ngeen ñu fayee nangam dinañ ko direct parti politique boobu ne mën na ko ñu dem ñu fay ñu ñu installé wu pour war a meeting ñu ne meeting bi préfet bañ na ko ñu ne kon li ci des comme préfet bañ na ko mooy dellu suñu kër ñibbi mais buñ na amee dellu suñu kër ña ñu waxaloon nañu déedéet dellu mënta nekk parce que ñun li ñu programmé woon def dinañ ko def normalement. dinañ ko def normalement mooy dinañ meeting ñu ne leen kon baax na comme di ngeen meeting ñun dinañ ñëw ci place bi ngeen doon meetingee ñu couvrir seen bi ñu demee ci place ba gis alkaati yi commencé di sànni la lacrymogène xale yi bokk ci parti boobu jàkkaarloog ñoom ñuy xeexoo ñu ne nag lii nekkatul birum parti politique mais suñu mbir la su ma nee suñu mbir la ñun mooy lii ñu gis dañoo yaakaar ne information la te comme information la nag dañuy def liggéey journaliste bi nga xamee ne woo nañ suñ correspondant ba nga xam ne moo foofu lañ ko sant mooy nañu direct comme niñ ko préparé woon di wane la fa xew bu doon ci ndakaaru gi noonu lañ koy defee bu doon feneen noonu lañ koy defee la preuve démb yéen ñii ñëpp yor télévision ak ay site internet bi ngeen demee ci corniche bii di direct est-ce que dañ leen a woo leen dañ leen a fay pourtant da ngeen direct wane loo xam ne àdduna mosu koo gis mooy alkaati bu jël barre de fer wala leneen dóor ko ci oto ngir toj ko génn ka ca ne ngeen koy seetaan en direct pourtant démb Walfadjri directul de

ñu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Si Lamine la faatu dégg bi mu ñu ak Nous ñu fa ñun benn lenn suñu objectif loolu mooy lenn suñu mission mooy drapeau bi ñu de dénk mu bañ a wadd xam nga drapeau boobu mooy lan nekkul ne ñun dañuy wut moyen pour que bañ a naax saa yi faatu ñun amuñu moyen

tay jii lañuy xam ba xam sénégalais li leen li leen doon jariñ bi Sidy Lamine di dund ñu ngi leen koy jariñ ba léegi ñu ne nañu woote manifester ñëpp gis nañ tay li xew sénégalais yi fi daje ça veut dire simplement que ni Walfadjri fu ko Sidy Lamine bàyyi woon fa la ne ba léegi te loolu mooy suñu satisfaction bi njëkk beneen satisfaction bi mooy suñu ay confrères mu yéen ñi di ñeneen ñi fi nekkoon man gëm naa ne su fekkoon ne journaliste dañ ñoo jëppi parce que li ñu def du métier journaliste du liggéey journaliste suñu leen woowee ñu ne ñu duñ ñëw mais journaliste dañoo ñëw jël parole wax te néewuñu fi kenn booy wax waxal lii ça veut dire simplement que ni ñi ñu ko seexal jéppiwuñu te man tant que maa ngi def dara te journaliste yi ma xam ne ñoom laa jàngandool école muy ci même école yi wala école yi bokkul wala ma ne ci école jóge fa ñoom ñu fekk ma fa wala ñoom ñu nekkoon ci école man mu fekk leen fa tant que jéppiwuñ ma ak mag ñi nga xam ne ñoo ne ci métier bi wuñ ma su ma tëddee damay nelaw ba yàndoor est-ce que nekkul tamit ne maanaam position bi nga xam si wàllu fi ngay jël à chaque am ci bi ak euh, faral askan bi daal maanaam te ñu jëm si ay contexte yoo xam ne ku nekk xam ne Walfadjri leeral yu que jàpp leen looloo tax du nekk nga ci école wala kii ne ci école journaliste li gën a gàtt ci li ñuy wax journaliste yi bu ñuy jàng mooy l'information ce n'est pas le train qui arrive à l'heure wala déet ñun Walfadjri bu ñu toogoon di passer suñu temps bépp di wane ay terre di wane ay tali di wane ay audience au président de la république di wane ay meeting am ak leneen mais là, c'est des trains qui arrivent à l'heure dans un pays normal loolu moo war dans un pays normal un président est élu pour pour diliguer. pour diliguer. tant que mi ngi c'est des trains qui arrivent à l'heure c'est tout à fait normal Vous gii tey da ngeen fi parce que coupé couper signal. mais vous ñu coupé le signal, da ngeen di considérer que li ñuy def ñun suñu c'est un train qui arrive à l'heure c'est tout à fait normal donc su un dysfonctionnement un dysfonctionnement, le train n'arrive pas à l'heure à part de cet instant là ça nous intéresse ñun bu ñu toogoon tey ñu meeting Mbàkke ba pare waa Pastef meeting Mbàkke ba pare alkaati yi encadré ko préfet autorisé ko ñu meeting ba pare yi encadré ñu bi seen kër dara du xew ñun du ñu wane dara parce que c'est un train qui arrive à l'heure mais bu dysfonctionnement amee gars yi commencé xeex commencé jàppoo rek ça intéresse les journalistes tey jii découvrir nga réew mu tudd Ukraine daa nga ko seetaan Ukraine pays de football mais tey bu ñuy wax ci Ukraine tout le temps c'est parce qu'il y a une guerre là-bas c'est pas un train qui arrive à l'heure bu ñuy wax ci Turquie depuis quelques jours c'est parce qu'il y a un tremblement de terre là-bas yàlla nu ci yàlla musal de la même manière ñun bu ñu dee jël suñu ay caméra di ko ci c'est parce que c'est pas un train qui arrive à l'heure Demb su Ousmane Sonko jóge woon tribunal dugg ci autom ñibi kërëm ci jàmm ak salaam da ngeen fay nekk rek naan xol leen mbolo mi ko top nangam ak nangam mais dara du leen jaaxal mais c'est parce que dafa am dysfonctionnement sur la corniche ba jappanté am fa motax mu intéressé leen intéressé média yi di ci àdduna bi yëpp mais en tant que journaliste aussi ñu privé maanaam sa liggéey nga war ba nga xamee ne euh, xarala yu bees yi ngeen yor di ci liggéey am na. ce qui veut dire ni pendance ces jours la man sànq rek maa ngi wax ak ñoom Cheikh Niass di leen tooñ naan leen man sept jours yi ma passé nii. Mhm. li ma ci liggéey coono bi ma ci daj daaw ma ko daj su may ñëw di liggéey si de tout de manière tout à fait normale. pourquoi parce que am nañ moyen bu ñu permettre ñu wax sa ñu bëggé té effectivement a ngi wax sa ñu bëggé mais am ben leader politique bu ko fi wax mu né le net le YouTube ne remplaceront jamais une entreprise de presse parce que entreprise de presse il dafa am ay rendez-vous am ay exigences am ay partenaires yo xamné dafa satisfaire partenariat yi am ak ñom loolu problème et ça ça nous coûte trop trop cher té j'espère que Babacar Diagne l'a compris parce que bu ko comprendre rek dina xam ne couper le signal de Walfadjri déjà c'est une aberration parce que lépp lu ñu doon bañ Walfadjri di ko def télévision ñu ngi ko def ci réew mi et il prive aujourd'hui une bonne partie des pères et mères de famille qui travaillent à Walfadjri d'au moins sept jours de salaire te moom du leen ko fay moo tax su ma déggee mu ne il est choqué ma ne ko man de boo choqué xaw ma ñun nu ñuy def ñun ñi nga xam ne dara leeru lu ñu ne bu weer wi dee dañu am lu ñu jox suñu jaboot d'accord mu mel ni aussi tamit war nañ joyantiwaat taxawaayu li nga xam ne moom di presse bi maanaam mbooloo ko ci war a am parce que souvent ñenn ñi dañuy wéet si seen xeex bi dara dalee si kaw maanaam taxawaay bi ci ñëpp war a am souvent dafay desee ci yeneen côté. xam nga man sama gëm-gëm mooy lan mooy joyanti presse bi ni mu taxawee ni parce que presse bi bul fàtte ne ay doomi Sénégal ñoo koy def les journalistes que vous êtes là ñun ñi taxaw jigewuñ planète Mars. fii lañ juddoo ci réew mi am fi ay nday am fi ay baay ça veut dire quoi que ni tous les problèmes yi nga xam ne moo am dans la société sénégalaise mooy am dans la presse dafa am loo xam ne il faut être un journaliste sénégalais pour faire ça c'est-à-dire que ñun ñooy toog di autoflagé wu c'est-à-dire que ñun ñooy toog di xas suñu bopp magistrats ils ont des problèmes les avocats ils ont des problèmes la police a des problèmes la gendarmerie a des problèmes la classe politique a des problèmes Sénégal ñëpp am problème mais ñun bala ñu am lu ñu neex toog ci télé di xasante suñu biir il faut qu'on accepte que ni ñun li dal secteur société bi yëpp moo ñu dal l' maintenant c'est qu'on reconnaisse que on a des problèmes on a des insuffisances ñu toog suñu biir ñu lël lëlum biir ñu ne lan mooy suñu problème ñu wut ci solution jàll ci leneen mais tu n'entendras jamais un magistrat xanaa ku démissionné toog naan magistrat yi Sénégal ñoo fi yées mais journaliste Sénégal ngay dégg mu toog naan journaliste Sénégal ñoo fi yées mais boo journaliste Sénégal ñoo fi yées tu es le premier parce que ci nga bokk. Hmm? Mais Walfadjri est habitué à subir cet acharnement.